wax dëgg yàlla liggéey bi lu kéemtaane ndax sëriñ bi may nañu lu yéeme mooy euh, ñëw jàkkaarloo ak mbooloo mi li muy xat-xat li muy tàng lool yërmandeem ak bëgg sëriñ Touba ak pastéefam bu mat tax mu euh, may lépp mu may ko bokk taalibe yi ñu saafoonte moom andil ko addi joo xamante ni wax dëgg yàlla dinaa ko tudd sax ndax lim bu takku la euh, toll na 81 millions CFA yoo xam ne ñaqu taalibe yi Serigne Touba yi lañ te nu yéene ko Serigne Touba nag ndax ko joxe sa bakkan moomutoo euh, li nga xam ne moom mooy saw ñax kon euh, fédé confédération Touba Italie ñëw mañ moo àndu rek ni siyaar si nañ Serigne Mountakha Cheikh Amadou Bachir salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke Mboup ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye bala ñoo dugg ci li nu tax a jóg rek ñu jaale sa la sa wajuru tedd wi nga xam ni moo fi bàyyikoo di sa yaay ci turu confédération Touba Italie mbokki taalibe yëpp amoon nañ yéene kere bi mu amee ñu ñëw bokk ak yow jotaay bi waaye nanga nga ni ñëpp ñu ngi la koy jaale ndax yaaku ko séq ak ñoom eh, fa mu jëm yàlla na fa fekk kilifaam yu tedd ya ca ñu teeru ko ca teral ko moom soxna Issa Thiam ci barke Serigne Touba mu mel ni bisu tay bi liñ ci waroon a wax lépp rek li ci ëpp wax nga ko li ci def sëñ Cheikh Mbacke eh, sëñ Mourtada Amar comme sëñ Mourtada Touré sëñ Mara Touré mi ngi fi te sunu kàddu moo ko yore nun ñi sëriñ bi tànn teg foofa daanaka mën naa ne kaddu yi mën naa ko bàyyee mu leeral lépp waaye ñi ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp ci jataay bi ak liggéey bu rafet bi